Nous ñëw tey en ce mercredi 27 mars 2024 muy bés bi nga xamante ni muy traditionnel lii di conseil des ministres ginnaaw bi nga xamante qui dit son excellence euh, monsieur le président de la république du Sénégal le président sortant monsieur Macky Sall tey amal conseil des ministres Boumoudjou, mujj jàkkaarloog ñi nga du gouvernement bi tey mercredi 27 mars 2024 muy dernier conseil des ministres muy conseil des ministres bi nga Goto, ni Tagoto, président Macky Sall ak ñi nga xamante amal Taï, ce mercredi 27 mars ginnaaw bi nga xamante ni ci boppam moo koy présider muy traditionnel bi xamante ni si la amal luy di conseil des ministres en tant que président de la république du Sénégal suñu source mi ngi xamal daal que lépp loo xamante ni sukkandiku la jëm ci émotion dinañ ko fa daal di gis ginnaaw bi nga xamante ni ay séquence la yoo xamante ni maanaam muy ay tàggatoo ay au revoir ginnaaw loolu nag kii di chef de gouvernement bi di maître Sidiki Kaba ak ñi nga xamante ni ñooy ay ministre am dañu war a wu tey pour benn préparatif jëmale ko ci dossier bi nga xamante ni moo war a dox ci diggante lii di passation de service bi nga xamante ni président Macky Sall dina ko def en ce mercredi 27 mars 2024 muy euh, euh, passation de service bi avec le nouveau président élu de son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye. li nga xamante ni war nañu pare passation de service bi est dox ci ki le président sortant di le monsieur le président de la République du Sénégal Macky Sall ak ki le nouveau président élu du Bassirou Diomaye Faye ginnaaw loolu nga xamante dinañ le 2 avril Inch'Allah, allah jour bi nga xamante ni mandat du président de la république Macky Sall di tàmbale kii nga xamante moy mandat kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mom ci bopam dina dal di former li nga xamante moy benen nouveau gouvernement ginnaw lool dal mu don ay attentes yo xamante ñing ko don xaar ci mom ginnaw bi nga li di élection officielle dal di daal tab le nouveau président du Sénégal di Bassirou Diomaye Faye mu en tant que cinquième président de la république du Sénégal muy tay ci alarba bi li dernier conseil des ministres bi nga xamante ki président de la république Macky Sall dina ko amal ak ñi nga xamante moy jëwriñu gouvernement gouvernement bi bi nga xamanteni Sidiki Kaba moy premier ministre bi nga xamanteni président Macky Sall donc dina jité gouvernement bi li nga xamanteni du tollu sax ci donc moy dernière l'idée di conseil des ministres bi Macky Sall wala président ak ministre gouvernement en attendant moy def passation de service ak qui nga xamanteni moy euh, son successeur du président. Diomaye Bassirou Diomaye Faye bi nga xamanteni mom aussi dafa war a defaat li nga xamanteni moy gouvernement ci bir loolu nak yakarna ni ki di président de la république Macky Sall mom du ndax té jour bi nga xamanteni lay def passation de service manam maanaam muy le 2 avril ci lay jël fonction ci li nga xamanteni manam moy sabbu tabb bu bees bi nga xamanteni ni nañ ko ko fofu ci li nga xamanteni mom lañ sommet des 4P en tout cas niñ ko xamlé won dal ki di son excellence le président sortant di président Macky Sall ginnaaw bi nga xamanteni manam le 2 avril lay fin ou mandaam si lay def passation adversaire ak kii di successeur am di Bassirou Diomaye Faye nañu jàpp ne que daal du sommet ben yoon ndaxte moom la ñu désigné mu am beneen liggéey bu bees bi nga xamante ni tey moom la désigné comme li nga xamante ni moo war a diriger lii di 4P muy pacte boo xamante ni mooy pacte de Paris pour le peuple et la planète qui loolu nak dina en fonction à partir du 2 avril bi nga xamanteni moy jour fin wu mandam Fi ci république du Sénégal dina jëlaat benen fonction dal bo xamanteni moy don envoyé spécial li ñu di P4P qui pacte bi nga pacte de Paris pour le peuple et la planète qui représente président de la république Macky Sall dina jël fonction au niveau international. Thank you.